wa billahi astaciinu fi kulli umuur wa alayhi takillu fi kulli duhuur laa xawla wala quwata illa billahi al mel ni nag suratul maida waaye xam naa bala ñuy jàll démb dafa mel ni am rëcc rëcc bu amoon mën na am bàyyi ngeen xel mën na am bàyyi wu leen ko xel waaye xam naa bu amatee rek ñuy jàppale ñu ci comme léeg-léeg dañuy sonn te buñ rek wala yàkkamte xaw a jaxase ci bañ doon wax <coughs> mbiram yent yàlla isa ci innama almasih isa bnu mariam rasulullahi wa kalimatu alqaaha ila mariam wa ruuxun minhu minhu boobu xaw ma lu ma wax dal waaye yaakaar na xaw ma dama min mi tabaid la te du tabaid dama yaakaar nag waaye daal am naa ci sikk daal waaye min mi du tabaid la rek maanaa ah waaw waa idaafa bi laa kon waaw kon xëy na loolu la waaw maanaam xuuj yi sunu borom moo ko ci daafale pour daafak tedda uufe uufeel ak tedda nga comme ni ngay waxee naaqatu naaqatallaahi ak baytullaahi façon yooyu la waa damaa jàppoon dama def dama ko def tabaxit maanaam lennal ko te nekkul lenn loolu moo tax ma ciy dellusiwaat noonu di ci fàttali waaw dégg nga aywa kon noonu la aywa ci maida bopp maida waaw maida téeméeri aaya la ak ñaar fukk di ñaari junniy baat ak juróom-ñetti téeméer di fukki junniy xaraf ak juróom-ñeenti téeméeri xaraf ak fanweeri xaraf la am na ci juróom-ñaari suux yi ci ne comme saari madaniya la nag dana jàngale mbiram pas-pasu kullëre dana ko jàngale rendi dana ko jàngale rëbb dana ko jàngale takk ko téere catholique mbaa yahud daga naam daganul dana ko jàngale ku duggoon ci lislaam murtat dana ko jàngale njàpp dana ci wax sàcc dana ci wax koo xam ne agresseur la di def ka ma cambrier lañ koy wax xaw ma cambrier xaw ma <laughs> kooku dana ci wax sàngara ak na mu demee dana ci wax kafaara ngiñ dana ci wax booy bëgg a faatu yi testament ya cay am yëpp daal ak yu mel dana ci wax ak yént yàlla Adama ak Xaabil ak Muusa gaayam yaag yooyu yëpp daal dana ci wax nga bàyyi ko xel noonu bismillahi yaa ayyuha alladina amanu ñun ñii kon sunu borom ne yéen jullit ñi yéen way gëm ñi yéen laay wax aw fu matal leen kon dañuy sant pour nu def bil uqudi ci pas-pas yi kóllëre yi yi war seen digganteeg seen boroom seen digganteeg nit ñi namat lim digle ngeen def ko li mu tere ngeen bàyyi ko sëriñ bi nga jàppanteeg itam fasanteek moom kóllëre nga taxaw ca pour mu àggal la ci wàllu yàlla bañ ci fecc kóllëre te xam ne fecc kóllëre moom tabaarakallah kon loolu la commencé saar wi war a matal kóllëre bu baax a baax a baax a baax sa digganteek nit ñi sa digganteek sa borom sa digganteek sa digganteeg sa bakkan ak yëpp daal uxillat daganaleef na yéen jullit ñi lakum ñeel leen bahimatul an'aami baahimay juri kër yi ñoom gileem ñoom nag ñoom xar ñoom bëy dagan na ngeen lekk ko gannaaw ba ak rendi illaa ma lu dul la nga xam ne yut laa jàngee foon na ko dee si naka jàng aleykum ci yéen ah. am na loo xam ne daañu ko jàng ci saar wii mm-hmm. ci kanam tuuti mm-hmm. yooyu moom ak lekkam daganul mm-hmm. loolu buñ ci àggee da nga xam ne ak lekkam daganul dégg uh-huh. uh, ne itam xayra uh-huh. muxilli sayd uh-huh. mbir moom nekku leen di daganal rëbb mooy bu ngeen nekkee ci aj tàngaw aj bi yéen a ngi foofu xaraamal nañ ci yéen ngeen di rëbb bu benn rab te wantum mbir moom yéen xorumun yéen a ngi way orma armal ci aj ja jamono bu ngeen armalee aj foofu moom araam na ngeen ngeen rëbb fa dana wax nag ban lañ war a rëbb na allaha sama boroom yaxkumu dafa atte maa yuridu li mu namm mooy xool dagan mu ne leen lii dagan na li ci des bàyyi leen ko fa kooku yàlla la neex mooy seet lu ko mu def lu ko dégg nga aay ji ñuy waaj wax dañu wax ne benn waay bu bokkoon ci giir rabia moo ñëwoon madinatul munawara bàyyi fasam ak arme bi mu àndoon ak yëpp ñëwal yenent bi ah ba mu ñëwee yenent bi ba mu ko xoolee na kanam gii de ko ko xool xanamu xam ne kanamu kéeféer piir la waaye ndogom gi ko ko xam xam ne ndogu warkat piir a ngi nii màggee ci yenent bi ne yenent bi loo ñuy digal yenent bi nga seede ne yàlla yàlla man mii ndawal yàlla laa taxawal julli joxe asaka mu ne ka ah, loolu de rafet na léegi nag tabaarakallaahu comme dama am ay kilifa mënuma def dara dara lu dul dama àgg ci ñoom wax leen la ma fa nag ma tuub dikkal leen ba mu génnee foofa dépare foofa jël giléemi gaa yi ak xari gaa yi yëpp a ah, lu yenent bi waxoon war katango moom nee na day tuub ba pare bañ ubbil ko bunti ba ñëpp gaa yi ubbil ko bunti ba yaakaar na ma nga ca mu raawoon gilee bi jur gi <laughs> ci déwén si nag ba mu ñëwee ah gaa yi ne dañuy nangu seen gileem yi nag te gileem yi eh, ràngal na ko pour ne da koy xadiyoo yàlla di tontu ca loola dégg nga wax baax yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla ñun ñii la laa tuxillu bu leen daganal wala bu leen fecci loo ci wax baax na sha'aira laahi mandargay diine yàlla jii lim na def leen ko yamlu ca yam leen ca nee na damaa xaraamal armal di rëbb ak yeneen matal ko rek ko fecc ak yooyu yëpp day dugg ci kat wala bu leen daganal itam xeex hmm. ashahara weer alxaraam bari bañ ormaal ku ci xeex weer wu yàlla na xaraam na ku ci xeex hmm. weer woowu bu leen jël gët yi di daganal ak xeex ci biir weer wa hmm. dama leen kaa tere wala la hadiya du caagee nag hadiya yi nga xam ne dañu ko jël pour war ko yóbbu kaaba ga pour war ko faa rendi bu ko kenn dogale bàyyi leen ba mu àgg waaw kay hadiya bu ko kenn dogale naan moo sàccoon sama gileem yi daaw ak sama gileem maam yi moo ko sàccoon ak yooyu déedéet moom comme ma ngi ko jëmee ci kaaba ga rek yëfi boppam la bokkut ak seen yos yi bàyyi leen yosam yooya. walal xalaayit du caagee nag yu ñu ràngal yi yu ñu ràngal yi boo ko gisee ñoom bu ñu daan wax mooy boo xam ne dañu xotti ca mbagg ca kaw ci jigéen ba bu fekkee gileem la wala nag la nga laal ci jigéen ba tuuti. ku ko gis xam ne bii bu ay pexe jugee ay pexe jubee dañ ko añee wala ñu reeree ko wala ñu takk ci ak caxat walla ak euh, dégg nga maam xiis xiisu koko yooyu wala yu kóoni yi comme genre leef leef yooyu ñu takk ko ci wala bu tàndarma wala ñu takk ci daal façon yooyu daal ku ko gis xam ne lii kaaba la jëm pour bu kenn laal loolu bu ko kenn dogale wala amin bu daganal itam ñi nga xam ne dañuy jublu ah. albayta néeg ba ah. alxaraama ah. ñu jublu si kaaba gi di aj si wala jublu si foofu pour am sécurité pour làkku yéen bu leen leen kolaas na da ngeen di xeex ak ñoom te yéen ñi def loolu yabtaxuuna yéen a ngi sàkku fadelan ak mbaax mooy wërsëg min rabbihim hmm. bu tukkee ci seen borom wa ridwaana ak ngërmandeem kon li ngeen di def bàyyi leen ko mu dikk leeral nag ne saa boo xamee ne aj gi dem na ba jeex ngeen yewi ko ci seen armal ga su leen neexee dama leen tere woon mun ngeen ka def wa ida xalaltum ndegam yewwiku ngeen ca armal ga ca aj ga ay ca fastaadu rëbbu santaane boobu nag liggéey leen jooju mu wax ak rëbbu dafa dagan dong bu la neexee it nga bañ ka def nekkul lu war loo xam ne far su ne boo armal gi jeexee da nga war rëb bi jullit ñi nag yéen lay wax yow yenent bi nee ñu mi ngi wàcc ci fatxu màkka ba yenent bi jekkoo yéeféer yi daldi di wax na ah tey nag bu fi kenn laal kenn kenn kenn kenn daal di tere saxaaba yi ne leen izhabu antum tulaqa ay ca dem leen tey booyal naa leen am ngeen liberté totale mm-hmm. euh, te man nag mm-hmm. dama leen koy wax joo xam ne mm-hmm. du ànd ak yedd du ànd ak dara waaw man daal dama leen a baal te yàlla tax ndax xam nga léeg-léeg nit nekk ci ay xate-xate ay jafe-jafe ah dem ba génn ci jafe-jafe yooya ka ko noggatu yàlla dogal le suy naa li daal wax rek yawmul mazlumi ala zalimi ashaddu min yawmi zali ki ngay noggatu mm-hmm. bis buy fay noggatu yi mooy gën a métti bis ba nga ko doon noggatu mm-hmm. ku weddi mm-hmm. laajal Karim Wade ak ko noonu noonu rek la alxuraan nag na déedéet yëf yi du demee noonu comme yow nekkoon nga ci pouvoir di am koy noggatu kooka dem na ba puwaar bi jugee ci sa loxo ñëw ci loxoom bu mu fayu nag bu mu wax ne rek kii daf ma daan bundu xataal daf ma daan def nangam nangam demeewul noonu man na bu mu leen yóbbee mukk sanaanu qawmin ah. mbañeelu aw nit ah. an sadduukum ngeen leen di tere di leen wàññi ah. anil masjidi ci jàkka ja alxaraam comme yéen dañ leen tere woon jàkk ji génn leen màkkatal mukarram su ngeen demee ba màkkatal mukarram nekk seen i loxo dama ne bu leen ko tere ñe ko tere woon ak lu leen contre contre nag an taatadu ngeen di jëlgati ci seen kaw di rayaka def lu ken xamul loolu jaaduwul bàyyi leen leen wa taawanu jàppalante leen dimbalante leen gis nga tafaala la def wane ne mbir mu ne du sottee ci kenn pour nga gaaw ko dégg xam nga zawiya bi nii mu mel bu ciment kese kese nekkoon du ko tax a sotti de gis nga karo dafa ñëw ak position bi mu taxawee montre ñëw ak position bi mu taxawee courant bi ak position bi mu taxawee ah dégg nga maam eh, lenn lu ci ne ventilateur yi ñëw bunt yi ñëw fenêtre yi ñëw lenn lu ci ne taxaw taxawaayam def sa participation yëf yi mën a sotti ah bu fekkee ñoom baada eh, buñ tegee warga wi warga rek buñ ko tegoon yëf yi du sotti di day ànd ak coalition bu muy ànd ak moom warga pour yëf yi sotti ñoom naanaa danañ ñëw bokk ci coalition bi ñoom suukar daañ ci bokk ñoom këriñ ak ñoom gaas ñoom kaas ak ñoom ñëpp daañ ñëw teew ah ki ñuy wax toggaakoon bi daal di ñëw téye yëf yi ah gis ko kon taawunu kon mbir moo gis rek noonu lay nuwee yàlla dafa xam ne yàlla rek moo mun boppam waaye ku dul yàlla mënul sa bopp xool ko rek foog nga am loo soxla fenn pour loo complète yàlla moo tëralee noonu àdduna waaye nag bu fekkee dem na ba loolu am wa taawunu rikk lillahi wa rasulihi na ngeen di jàppalante alal birri rek su jàppalante mënul ñàkk mënul ñàkk daal na nekk ci mbaax képp képp képp te mooy li leen yàlla digal wa taqwa ak ragal suñu boroom waaw mooy fi mu leen yemlu ngeen yam fa sérieux seen diggante ak moom waaye wala taawanu bu leen jàppalante mukk mukk nag alal ismi ci loo xam ne dafa jur bàkkaar waaw comme nag doomu aadama yëpp njabootu yàlla lañu te ka ci yàlla gën a bëgg mooy ki gën a gën a mën a jëriñ njabootam gi waaw kon nag lépp loo xam ne da jur ak nooneel ak mbañeel rek bu leen ko seq ak ñoom wala taawuna al ismi luy jur ak mooy yàlla ak bàkkaar wala odwaan ak nooneel lii tax jullit ñi gën a sore yow gën a bañante gën a nangam nangamte loolu moom bu ko fi kenn indi moom wattaqullaha ragal leen sunu boroom ci lii mi leen di sant ngeen def ko te bàyyi cere yi uh-huh. inna allaha naka sama boroom uh-huh. shadidul iqab uh-huh. ku tar ay dumala la xanaa mu ñàkk caa jublu waaye bu ci jubloo mar de taali uh, ñu ñëw tuuti ci yi nga xam ne dañu ko xaraamal illa ma yutlee aleykum bi ñu jàngoon léegi ah ma ngoog li nga xam ne dees na ko jàng mi ngi nii lii ci la dégg nga nee na xaraamaleef na mooy tereef na rek aleykum ci yéen jullit ñi almaytatu jëfandikoo médd loo xam ne dafa dee te kenn rendiwu ko loolu de xaraam na ci yéen jullit ñi ngeen koy jëfandikoo dégg ko baax a baax waaye itam yéen ñii dem ci yàlla yéen la ñuy wax xaraam na ci yéen ngeen topp seen bànneexi bakkan yi uh-huh. ak lépp loo xam ne uh-huh. dafa rey seen xol yi uh-huh. ngeen di nuur ci càggante xaraamal naa ko ci yéen we nga ko baax a baax ma ngoog wa damu deret sobe la xaraam na booy rendi deret di njëkk a sereti sànni noonu sobe la waaye bàyyi xel nag booy fees nag dafay xaw a waaw gannaaw boo ko rendee ba mu sedd ngay fees yooyu lay takk du sobe de baal nan la ko dégg nga loolu bu baax kay wala xamul xindiir ak yàpp kor ñaaña mooy mbaam xuux xaraam na ci jullit mu di ko jëfandikoo mm-hmm. wamaa ak bépp baaxima boo xam ne mm-hmm. bépp gàtt boo xam ne mm-hmm. uhilla takkoof na mooy bañ koy rendi yuuxu nañu ca mm. tudd ca mm. li xayrillaahi ñeel leneen lu dul yàlla bihi ca gàtt ba mm-hmm. kenn du ko lekk mm-hmm. ba ngay rendi mm-hmm. da nga de barki sayyidina Muhammad medd la xam nga mu wala waxee yonent bi nag keneen matul di wax ba dégg nga loolu kon rendi nag bismillah soo ko fàttee nag baal nañ la mën ngaa lekk bismillah gi soo ko fàttee mën ngaa lekk waaye soo ko tawee bàyyi ko kay la coow la nekk wala nga wax ci leneen lu dul turu yàlla fa la coow la ne ma ngoog wal mun xani xatu ak bu xerandiku boo xam ne dafa laxasu buum gi xoj ko xoj ko ba mu dee dee su ko lekk medd la wal mawquuzatu ak bu ñu sànni aw yat yat wala xeer wala affaire wala weñ lañ ko sànni mu jaaree ca dee te kenn dindiwu ko xaraam na lekk Mm. wal mutaraddiyatu ah. ak bu bàppiku ah. jugee ca kaw etaas ba ah. daanu dee dee su ko lekk wan natixatu ak bu ñu mbëkk daf doon mbëkkanteeg morom yi morom yi mbëkk ko ba gaañ ko tabaarakallaahu dee su ko lekk ba mu dee daal maanaam dee su ko lekk wama ak lépp loo xam ne akala jëfandikoo na ko asabu ndeg ndek yi bukki yi gaynde yi till ñoo jaar ci gétt ga fàdd fa bëy lekk lenn la soo dikkee buun le naa jekkale la ci des de loo buun buun wala loo meeyey meeyey ah di demal nga lakk demal nga peesalu ji nag waaw waaye nag naan kii rek naa kii rek bàyyi ko nii rek ak duufaayam beeg ni ma ci sonnee déet lu fi indi loolu illa ma zakaytum lu dul la ngeen rendi te rendee ko nañu ko war a rendee mooy ba nga koy rendi sart yi rendi yëpp daje na ci wax nga bismillah tabarakallah jublu nga penku yooyu ñàkkoon jublu penku sax tere ñu lekk ko Sénégal nag yaakaar ne jigéen du rendi euh, loolu moom ba bërki ah, daaw xam daaw jéeg ñu koy isati maire bay rendeeg yooyu defe ne kii la yaakaar ne dagum soog yooyu walaay dagan na xanaa dañ kaa miinul rek dagan na di téere yi jàngale nañ ko dañ kaa miinul rek ndax ji fii moom <laughs> mooy loolu dafa dëgër dégg nga maa ak lépp loo xam ne zubiha rendeef na ko ala bi ñu rendee ko ci turu xërëm loo xam ne da nga koy def ci ay tuur wala ay xërëm ak lu mu mën di doon te ñoo la ko tax a rendi waaye yàlla taxul a kaa rendi loolu dee su ko lekk te bu baax a baax kon yooyu moom dafa xaraam seen ak jëfandikoo li xaraam bokk na ci waan taxtasimu ak ngeen di séddale di sàkkoo séddale mbir yi bil azlaami ci ay bant aslam yooyu nag incha allah mun na am dañ ko jàng mu gën leer wala daañu ko jàng euh, suba daal incha allahu taala kon nañu bàyyi aslam bi foofu bu ñu àggee foofu ñu wax ci liñ ciy kon aslam yooyu di bant yooyu ngeen di séddale seeni mbir yooyu dafa xaraam comme genre gisaane yeeg yu ñu demeeg yëpp rek sunu borom ne zalikum yooyu seen ma fi tudd dey ah. yëpp yëpp yëpp ah. fiskun uh-huh. ak caay-caay la uh-huh. ak génn topp la uh-huh. comme bant yeeg lekk meddi yeeg comme façon yooyu ma fi wax yëpp ak caay-caay képp la kon nag ab jullit waru def keroog nag ba yonent bi defee fatxu màkka déet taxawaay tax mooy xajatul wadaa ba mu ko defee tabaarakallaahu taxaw ca arafa la aaya ji wàcc wala nag bis ni tey moom islaam am na ndam ndam loola moo continuer di continuer continuer ba suñ junni yàlla tey jii yooya bokkoon na ci lam waxoon bis ni ki tey nag bu yéeféer wërati kaaba gi naan day aj màkk bis ki tey nag ah bu fi kenn wërati kaaba gi naan da ngay def taati neen dañ ko daan def ñoom ak ah, waaw ndax nee nañ yëre yi ngay moye yàlla daal di jëf naka su noonu boo dem bay wër kaaba gi ah, ah déedéet waroo kaa sol nag ndax comme yaa ngi jëm ci yàlla danañ ci ñëwaat uh-huh. Uh-huh. loolu uh-huh. amoon na fi xewoon na fi sunu borom na tey al ma tey jii may waxanteeg yow di bisu aljuma di taxawaay arafa ci xajatul wadaa ya isa xaddina alladina gaa yi nga xam ne mm. kafaru weddi woon nañu ah. min diinikum ah. wóor na leen ñoom mhm. la ñu bëggoon ci seen diine ji mhm. mënatuñ ci dara mhm. laal mu dem laalul mu dem ah. fi mu nekk daal moom découragé nañu lañ doon xeex yëpp wóor na ñoom na nañu boobu ba léegi nag ci échec boobu moo dal ñi koy xeex ba léegi échec boobu mooy laal ñi koy xeex ba ilaa yawmina hada kon nag comme nii la demee tamaaleen téelum sun ci mikaay faxshaw nii ah ah sawla fala taxshawhum bu leen ragal ñu jullit ñi jaaduwul uh-huh. bu leen leen ragal uh-huh. ngeen feeñal mbir mi fu leen neex jaaba jonge leen wane ne yéen a nekk ci dëgg uh-huh. waa ñoom ñu nekk ci caaxaan uh, rusuñu kaa feeñal ah yow mi nekk ci dëgg loo ciy nëbbu nag tam na ci dëgg nga nekk looy nëbbu na feeñ na bér wax saw ni ragal leen ma man yàlla dong man kese ndax mbir yëpp sama kàttan la ne al yawma tey nag ah. ak maltu ah. matal naa ah. lakum ñeel diina diinakum seen diina ji lépp loo xam ne atte la ponk la tawxiid la sharia bu ngeen war a jëfandikoo la lépp daal leer na farata yeeg aj màkka yeeg asaka yeek mm-hmm. lépp daal tabarakallah nee ñu ndeysaan ba aaya ji wàccee ah na Omar dafa jooy ñu laaj ko lu la jooyloo mu ne damaa xam ne ida tamma shay'un bada naqsuhu de mbir de buñ ne ma mat na wàññeeku lay commencé def wàññeeku lay def dégg ko bu baax aha comme xaas na mat nag daf ne su mbir matee wàññeeku lay def loolu yomb naa dégg <laughs> weer wi boo gisee mu ne ñu muñu maaral am fukki fan ak juróom dafaa def ñu muñu maaral rëy lool waaye booy xool rek day commencé di waat di wàññeeku coppat coppat ndànk-ndànk ba dem bay ba ni muy xëyee gisoo nit itam daanaka su xasee gën a adduna wàññeeku lay gën def ci ci mat di ndax dee lay gën a jege dund nit ndax su xasee judd rek li mu war a dund ci misaal bu fekkoon ne téeméeri at la day mel ni saako boo xam ne cent kilo la bis boo ci coppate ab kilo wala bis bu coppati ci libéré day yokk wala wàññeeku jeex na ku sori fa ngay xëy jege ji fa ngay fanaani loolu wala fi wax ñun nag moom <laughs> talaa yàlla nañ gudd fan foofu koy gudd fan mënatu fa am comme nag yéen àgg ngeen ba pare te nit yàlla yi wax rek wallahi ma rajaa man rajaa illa min at-tariqi wa amma man wasala fala yarji nee na kay li mën a wax mooy ñi wàññi ko yëpp ña nga wàññi ci yoon wa waaye ku àgg dootoo wàññeeku sin voyage bii noonu la suñu digganteeg seen borom ah. kenn mësul dégg lii ah. waat maam tu Seydina Omar ba mu jooyee ah. ñu laaj ko mu wax loolu ah benn yahud ne ko yow di Seydina Omar li ma xam mooy aaya ji bu fekkoon ci ñun la wàcc dañ koy jàppee feet xam ne day tàgg yenent bi waaw yi yenent bi wàcc ñi naan juróom-ñetti fukki fan du de wax nañu ko ci mm-hmm. kon aaye boo xam ne wàccaat na di indi benn ci atay sharia yi mm. amaatul gannaaw aay mm. waaye aaya buy xuppee que yooyu daal amaat na fi moom gannaaw gi mm. yuy tiit léegi nit ñeeg yooyu waaye buy wax def leen ak bàyyi leen moom wàccaatu fi mm-hmm. dégg nga baax bu baax mm-hmm. wa atmamtu ah. matal naa uh-huh. aleykum ci yéen uh-huh. niamati uh-huh. sama xéewal mooy maa leen gindi defal leen tawfiq defal leen makka tabaarakallaahu ngeen daane yéeféer yi gañe leen man mii maa leen ko defal hmm? te nag waradiitu tànnal naa leen lakum mooy gërëmal naa leen lakum ñeel leen al islaam islaam bii maa leen ko tànnal diinan muy diina joo xam ne moo gën ci diine yi nekk diina ju ma gërëm man yàlla dégg ko baax nee fa mani turra képp koo xam ne loru loof na ko fii max masatin mu nekk ci xiif sonn lool xiif lool ba amatul lenn lenn lenn lu mu jëfandikoo a ah, kon bu boobaa de yéen ñu ko tere woon ci ginnaaw ne xaraam na sharia may na ko ko xukamaaw yi nag dañuy wax ne addunya kulluha kal mayita kon nag du dagan ci koo xam ne day dem ci yàlla lu dul la ci mën a ñàkk rek yam ca la ngay lekk képp te mu fexee lew ah. la naan képp la ngay sol képp la ngay war képp waaw kay ci la yëf yi mën a sottee uh-huh. waaye nag yow di dajale rek di dajale rek uh-huh. taali uh-huh. mm-hmm. ci kuy dem ci yàlla déedéet mukk mm-hmm. ndeysaan mm-hmm. Seydul Haaji Malik daana wax ne man de su ma ragal suñu àq njaboot benn birig du ma fi tabax waaw benn birig ba ñàkk njaboot dara yey ma ci kanamu yàlla képp képp waaye benn birig du ma ko fi tabax ndax jëru ko fi di xoolal ñi ko fi tabaxoon xoolal ci diggante moom gannaaw ñi fi ñëw ñi ko fi tabax waaw boo xoolee foofu da nga jëru ko sax moom da nga yem ci li yemamaay rek te sant yàlla su ko defee xisaab ba moom gën a gaaw yomb <laughs> waaye dajale ko fee dajale dajale ba tabaarakallaahu ah foo ko waxee yàlla yàlla suturaal waaw jeex na du ko sax mat ma léeg-léeg sax du ko mat moom kay doy na waar trop trop trop trop sooy seetantal yooyu da nga xam ne daal mbiri daal <laughs> li yàlla wax mooy dëgg àdduna daal du dara du dara du dara ma ngoog fii max masatin uh-huh. xayra mutajaanifin mbir moom nekkul di aj jeng uh-huh. lil mi jëm ci bàkkaar uh-huh. mooy ba muy lekk lu xaraam loola fekk mu ñàkk a ñàkk bay jëfandikoo lu xaraam loola gone yi lañ xam nga ñoom xamul ban arrêt la ñuy wàcc nekkul koo xam dafa nekk ci tukki bi mooy yàlla ci tukki farata la nekk aywa ñam jot na ko amul lenn lu mu lekk mu fekk meddi yooyu ñu tere woon sariya nee na mën nga cee dagg lakk waaw nekk nga ci xate-xate amuloo lenn loo dundee fii xiif bi métti na tar métti na ah sariya may na la yenn yoo xam ne dañ la ko xaraamaloon ci yow nga jëfandikoo ko waaye nag bu sa aajo fajo li ñuy bañ mooy nga dëkk ci lu xaraam te jéem a ut leen lu dagan nag uh-huh. gaa yi nag buntu boobu la ñuy ubbi uh-huh. duñ jéem benn buntu bu dagan naan comme damaa nekk ci xate-xate mënu maa ñàkk def li def loola uh-huh. sax nag dàkk nag sax ca dàkk dàkk dàkk teewu ñeeku dégg nga fa inna allaha naka sama boroom xafurun ku bëri sutura la waaye raximun ku bëri yërmande la ndax xam nga mën naa wax ne boo doon dee xiif itam ah lu dagan rek gis fi mbedd mi fii hmm. kon jafe-jafe mën na am hmm. kon yàlla moom ku dem toujours jàmm la ràcc ta hmm. nit du la góor gi bu saax daan wax rek nit du am alalam ba pare di ko bañ yàlla du ñu bind ba pare dañuy bañ mu ngi lu ne ñu ñëw tuuti a ji ñuy waaj wax nee ñu sababu nusul bi jibril alayhi salaam dafa ci yonent bi sallallahu di sàkku ci moom ndigal pour mu dugg ba ko yonent bi mayee ndigal mu xaw a daas daas lu maanaam bañ a dugg daal xaw a tendeefal daal naas naas lu noonu naa naas lu noonu rek waa baara sinhu dégg naas lu noonu yéen du nekk bismillah forcé ko jibril na duma dugg ndax kër gi këcc xaj dafee nekk <laughs> kon de kër yi nga xam ne xaj yaa ngi fi moo xam dugg rek ñu commencé baw mar hmm. day taali xaj dafee ne fii ak nag mënuñu fee dugg lu dul xaj yi dañoo génn uh-huh. xaj moom uh-huh. ña ngi koy wax ca kay bu uh-huh. wala ka nga xam ne dafa yor mu koy sammal ay juróom ak yooyam ndax nag bu boobaa sa kër gi da nga fee denc loo xam ne da ngay bañ nit sàcc ko ah ba tey it mën nga kaa jëfandikoo foofu di waaw kay ci façon boobu waaye def ko ku plaisir nii rek rek comme ni ko gars yi defee comme ni ko leen ci tubaab yi defee ah loolu xam nga ne mar day taali nga